seetlu ne xam naa fii ba suba ku jël parole danga am gis-gis beneen ci biir téere bi ndax ak yaatoo boroom xam-xam yi dañoo maase wax ne menn mbir bu dee benn te ñu bari wuute ca mbaa ñu am ca gis-gis yu bokkul day tegtale ñett bu jëkk bi moo di ne mbir moomee ñu wuute eh, lu riche la maanaam lu bari njariñ la kon ñaareel ba ñu ne itam bu fekkee ni ñu bari dañoo wuute ci lenn kon day wane ne boroom ci teg lenn loolee mbaa mu def ko boroom xalaat bu xóot la bu yaatu boroom gis-gis bu sori la ñetteel ba ne ginnaaw nag loolu moo di wuute kon wuute moom mënul ñàkk lu baax la ndax rek day tegtale ne benn boobee ñu wuute am na solo kon nag sëriñ si téere bi am na solo ñu ngi lay sant bu baax ci coono bi ak liggéey bi nga xam ne eh, teg nga ko ci sunu loxo nun taalibe yi nga def ci liñ ci def ngir liggéeyal xam-xam liggéeyal samaam liggéeyal taalibe yi ak yoon wi kon duñ def lu dul sant la ci téere bi jàng naa ko waaye bi ma koy jàng damaa jiitaloon yaakaar yaakaar ja mooy ma fekk ci loo xam ne dana ma jariñ fekk ci itam loo xam ne xaw ma ko woon wala ma jàng ci loo xam ne xaw ma ko woon ma xam ko ca alhamdulilah bi nga xam ne sama yaakaar tasul mën naa laa seeral ne téere bi fekk la ma ca yaakaaroon lu ko weesu fekk naa ko ci téere bi fekk naa ci itam loo xam ne man mii di wax ak yow xawma ko woon ci taarixu yoonu murit ba tax na kon téere la boo xam ne jariñ na ma te itam la ma réeran foral nga ma ko gis naa ko ci muy téere ba am solo euh, li nga xam ne nag Euh, seet naatu ko ci téere bi dafa bari lenn li sama xarit yi ma jiitu muy sëriñ Abdul Ahad ak sëriñ Saïd euh, jaar nañ ci yenn yi li ci des bari waaja tax na ba damay jël rek ñaari tomb rek ndax waxtu wi dootu ko may tomb bu njëkk bi mooy ci buntub ñetteel bi alfaslu salis ginnaaw bu ñuy waxee ca xiyaat bi waaye faslu saalis bi moom itam dafa daf ma yéem ndax danga ca danga da nga caa waxtaane lu jëm ci jikko ak lu koy defar muy tarbiya la ci yéeme mooy andil nga nu lan mooy tarbiya ca démb ak tey won ñu ni ko nasaraan gise woon bu yàgg ak ñi fi nekk tey ci seeni boroomi xam-xam nga seggal nu ko andil nu ko ci islaam andil ñu gis-gisu Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ci mbirum tarbiya ak manhajam wala méthodam bu bees bi muy yaroo man ma gisa ci ne tomb boobu muy tarbiya nga xam ne mooy cosaanu yoon nga xam ne moom tomb boobu mooy priorité ci mission Serigne Touba muy tomb boo xam ne fii mu nekk àddina bépp a ko soxla ndax àddina bépp a nekk ci crise morale maanaam du rek fii la jikko yu yàqoo waaye fii ak Europe ak fépp ñëpp ay jàmbat jikko yu yàqu yi ba tax na kon daa mel ni tomb boobu mën naa lëkkaloo ak tomb bi sëñ sooy bu doon wax léegi muy xiyaada bi ndax xiyaada bi mënul mënul dem bàyyi tarbiya gannaaw li ma ci li ma ci gën a yéemaat tomb boobu nag mooy euh, li mu lëkkaloo ak tomb bi sëriñ sooy bu doon càmbar te mu aju ci alxiyaada leadership la ma ci dégg man te day confirmer li sëriñ sooy bu wax moo di ne da da mel ni da noo woo ñu delluwaat ci sëriñ Touba won ñu ne sëriñ Touba modèle la référence la te mën nañu delluwaat ci moom mën a solutionner sunu problème yi ñu dund tey ci suñu jamono ñu la ko dégg wala boog danga noo woo ko ne nan delloo siwaat la sëriñ Tuubaa tëraloon andi ko ci suñu jamono ngir ñu jariñu ci man ma doon ñaan tomb boobu muy tarbiya ak tayaada ni ko sëriñ Sooy bu ñaane boo ci mënee def ab téere beral ko boppam daan ci bëgg lool walla bépp gëstukat boo xam ne mën naa am na euh, kàttanu def boobu liggéey defal ko taalibe yi ak sëriñ bi beneen tomb bi bi nga xam te seetlu naa ko maa ngi ko seetlu ci ci buntu juróomeel bi ak juróom-benneel bi ak juróom-ñaareel bi maanaam ñetti bunt yu mujj yooyu foofu daf ci am loo xam ne daf may yéem lool muy xarala goo xam ne am nga ko ci li ñuy li ñuy tudde méthodologie rawaatinaat nag bu bu ajoo ci ni ñuy binde histoire ni ñuy binde taarix ak ni ñuy analyser boroom xam-xam gis lu bari liir naa ko ci ñu bind ci taarixu histoire ak jaar-jaari Sëriñ Tuuba radiallahu anhu ak jaar-jaari xasaayid yi ak yu mel noonu maanaam événement yi nga xam ne moo ëpp solo ci histoire mouridisme waaye li may yéem mooy benn bu jëkk bi mooy ñaara ma ci yéem foofu bu jëkk bi mooy euh, dañoo aadawoo ñiy bind ci taarixu mouridisme bu ñu ñëwee ci événement yi mouridisme yi yu mag yi lu mel ni jeewal lu mel ni ndar lu mel ni mbàkke baar yi ak yu mel noonu euh, dafa mel ni ci niñ ko mën a waxee dañuy ñoom dañuy yem ci alwasfu li ñu tuddee alwasfu wa sarf maanaam loolu méthode la ci histoire ci ni ñuy bindee taarix mooy première pas bu jëkk bi loolu nag pour ñu leeral ko nii lañ koy tënke buntu boobu maanaam wasfu ak sarx mooy ki bind day day gëstu pour day day mel ni koy tontu laaj yi di ñëw maanaam waaw yi xew kañ la xew ak fan la xewe ak naka la xewe muy temps ak espace bi kañ la xew jamono jo at sàngam la bés sàngam la fu ma xewee màkkaat ma la xanaa Mbàkke Kajoor wala jeewal nu mu xewe lu mu soloon ku ma àndalan kooku mooy wasu mooy wasu sëñ Cheikh nag bi mu ñëwee waxuma ne andiwu ko de waaye da ko weesu dafa weesu wasu ci ni ma gis ci ñetti bunt yooyu ci ni mu taari taarixelee ahdaas yi ak xasaayit yi ak jaar-jaaree sëriñ bi dafa weesu was dem ci li ñu tuddee philosophie de l'histoire te mooy lan nga xam ne kooku kenn mënul bind histoire ku dul ka xóotal lool mooy kan mu mel ni loolu lu ñu koy xamee mooy dafa mel ni sëriñ sax dafa posé li xew li tax mu xew muy laaj boo xam ne bokkul ak ñetti laaj wi weesu li tax li xew asbaab ya ngay seet kooku nag moo tax suñ seex weesu wasu tàbbi ci analyse sëñ Abdou wax na ko léegi daf ma daf ma neex ci ni ni mu weesoo loolu dugg ci analyse jël événement yi di ko analyser benn par benn waaye ñaareel ba bi ma gën a neexaat itam ci biir loolu mooy toomo ñaareel bi ba tey moo di ne moom bi muy analyser ahdaas yi dama ci seetlu lu doy waar muy ak xarala ci méthodologie mooy ni muy taarixale jaar-jaari sëriñ bi ci boppam maanaam siiraam ci boor marxala bi mu koy jàngat ak ni muy taarixale du këri sëriñ yi mu sos ci diggante boobu ba ni muy demee ndar kër yépp rek ak ni muy taarixale li fi sëriñ bi bind ci diggante boobu ñetti taarix yooyu sëñ Cheikh da koo boole ci benn taarix lëkkale ko mu ne maam dafa lëkkale taarixu seetu sëriñ bi ak taarixu la la muy bind ci diggante boobu ak taarixu yi mu fi sos ci ay kër mu dëxañ ko ci benn taarix rabt ko loolu ak xaral la xaw ma xaw ma ndax rebel <laughs> maanaam euh, da nga ci ci baatin wala en loolu moom sëñ bi yéeme na waaw téere bi tey man buñ ma doon buñ ma doon laaj xalaat ne ma foo koy foo koy noo koy classé dama koy classé ci référence yi gën a mag ci yoo xam ne mënul ñàkk ci képp kuy jàngat taarixu Sëriñ Tuubaa ak taarixu yoonu murid téere bi téere taarix la ala alal mustawa de de haute facture de haut téere la boo xam ne mënul ñàkk téere la boo xam ne man gis naa ci yu sew yoo xam ne sama diggante ak saa borom lay xaw ma ko woon waaye soxla woon naa ko mënuma ko woon ñàkk kon dimbali nga ma te leer na ma ne ñi jàng téere bi ak ñi koy nar a jàng ëllëg lii ma wax nii daañ ko gis seen bopp kon Serigne Cheikh duñ def lu sant la gërëm la ñaanal la yàlla te nga baaxewaat ñu ndax lii rekk moo fi des lii rekk moo fi des te lii rekk la yoon wi soxla fi mu nekk nii ndax fi jamono toll lii rekk moo mën a liggéeyal mooy liggéey bi gën a wér ci yoon wi te mooy liggéey bi gën a mën a assurer ëllëgu yoon wi te moom la mooy gën a mën a gindi suñu génération yii di ñëw ëllëg ma bëggan nag bu loolu weesoo ma doon ñaan doon proposé benn xalaat ci sëriñ Cheikh moom mi giite meenul bàq yi ak ñoom Sayxuna ñi mu àndal liggéey boobu moo di ne dama bëgg ginnaaw moom fi mu nekk nii eh, yàlla dogal na sëriñ Tuubaa eh, bàyyi na fi liggéey boo xam ne du jeex te alhamdulilahi rabbil alamina jamono yi ñu toll suñu xol sedd na eh, dafa mel ni gëstu mu ngi bëgg eh, dekki ci réew mi ci ci murit gi ñu bari ñu ngi bind fi mu nekk nii rek am na benn téere boo xam ne eh, am na ku ko def génnagul ñu ngi koy xool ak bu sëriñ Cheikh bi yu demee noonu kon ma doon ma bëgg nag académie bi may proposer rek xalaat académie bi téere bu génneti académie bi na ci def benn benn ndaje woo jàngalekat yi woo boroom xam-xam yi ñu daje ci daal di waxtaane téere bi eh, waxtaane ko ci xam-xam eh, ku nekk gis wax joxe ca sa xam-xam la ca manqué eh, la ca kii noo ko gisee mu nekk débat téere bu génn rek ñu jàpp mu nelu baax ndax loolu ci liggéeyu académie bi la bokk ñu woote ne tey déere sàngam diwa ko def dañ koy waxtaane bés sàngam ñu def ko loolu daal maa ko doon ñaan su ma nee antu dina baax lool incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa